yi nekk si diwaanu Potou jaaxle nañ loolu li ko waral nag mooy soble bu bari lool ba nar a yàqu te gisuñu ko ko jënd. tey lu mot jege tey ñaar fukki fan amul bi benn ku jënd benn saako soble loolu nekk mu jaaxal ñu jaaxal réew mi te loolu nag réew mi yëpp la loolu moo nekk ci vallée de senegal Dagana ak Podor loolu moo xew ci ñaay bi yëpp. amul benn solde fu ñu ko jënd prix bi ñaata lay jar fii mu nekk nii trois mille trois mille cinq cent le sac de vingt cinq kilos ñoom ñi nag di ñaan ci état bu Sénégal ngir mu indi leen ay saafara maanaam zone bi yëpp li fi génnoon mooy quatre vingt mille ton ren au moins ñu ngi xaar cent cinquante mille tonnes parce que production bi yokku na yokkuwaay boo xam ne foo ko natt passé na fa léegi nag bu yokkoo nag faaw ñu wut ay pexe pexe bi mooy ñu fexe Euh, réew yi nga xam ne ñoo fi jege ñu fexe ba soble bi génn ñu mën ko faa jaay beneen bi état bi teg fonds yoo xam ne bu soble bi naree yàqu ñu ñu mën a jël fonds yooyu jënd soble bi stocké ko ubbi campagne bi boobu 10 000 11 000 la doon jar tey dem na ba nga xam ne mu ngi jar 3 000 ba 3 500 pexe bi ñu mën a def mooy heure bii ni soble bi yomb mu génne ay milliards génne fonds yu am solo dugal ko ci soble bi jënd ko stocké ko béykat yi mën a dem béy. mu nekk lu day waar fii si diwaanu Potou atub ren production bi dafa yokk ba tax soble bu bëri lool béykat yi nag di ragal mu yàqu fileeg ay bés ñoom ñi nag di ñaan état bu Sénégal ngir mu jël ay matukaay dimbal leen si wàllum njëg gi ak denc gi ak ci